mais nag comme dañoo waxta euh, yàkkamti waxtaan bi dañuy jëli tout de suite justice dikk farampàccee ko alors euh, mi ngi noonu Sonko et ses ñu mhm. bàyyi Pape Thioro Ndiaye daal di ci yaatal waaw donc moom la ñuy waxtaanee tey euh, maanaam procédure yi nga xamante ne yu bëri yi nga xam ne dañ koy dégg. ñu def le point ci benn bu ci nekk. nga xamante ne daanaka mënees na koy tëkk ci dix dossiers wala dix procédures. yoo xamante ne soit dafa impliqué Ousmane Sonko wala bokk ñoo xamante ne jege jegeñaaleem la. muy ñi ñuy tuddee Sonko boys wala ñeneen ñi nga xam ne soit ay activiste lañ wala militant Pastef wala euh, yeneen ak yeneen. xam nga jamono ji ñu toll nii moom bokk Pastef déli la. xanaa wala nga doon waxuma nga bokk Pastef waaye doon sympathisant am cofeel ci Ousmane Sonko rek diri la Sénégal. Mm-hmm. noo def ñu commencé di la xeex di la. topp di la gasal ay kàmb di la xool naka lañ la indilee problème. donc li nga xamante moom moo ci jiitu li may njëkk évoqué procédure bi may njëkk évoqué mooy plainte bi nga xamante am na ci yoo xamante ne Ousmane ko ciy na ko plainte maître El gis ngeen loolu am na procédure disciplinaire boo xamante ne ordre des na ko contre maître ci tuuma yi nga xamante teg na ko ci kawam parce que Ousmane Sonko ñaari mbir la koy reproché mooy euh, li nga xamante moom mooy ormam bi muy xotti saa yi def conférence de presse am mm. présomption d'innocence maanaam yu ko wax présomption d'innocence mooy tribunal atteegul nga taxaw ni nit ki yaa def lii mm-hmm. loolu ab euh, ne jàppee na ko ab njubte ñaareelu mbir bi mooy maître El Hadj Diouf ca France dañ ko condamné pour agression sexuelle mm-hmm. ñoom ñu jàpp ne avocat boo xamante nag loolee tuuma bu réyee noonu teg nañ ko sa kaw waratoo sol robb bi mm-hmm. amatoo sa place ci justice. donc ñaari yooyu noonu mooy yi nga xamante ci la sukkandiku pour daal di porter ki nga xamante ni mooy kenn ci avocat Adji Sarr yi. Mhm. deuxième bi mooy te foofu sax mënees nañ jàpp ni fi ñu toll nii Ousmane Sonko commencé na lancer missile yi. Mhm. contre ses détracteurs parce que bu weesoo maître El Hadj Diouf am na ci maître Gabi également am na procédure bu ko boo xamante ni koy nar a mhm. sans compter yeneen yi nga xamante Euh, dañoo tudd turam ci complot bi nga xamante ne moom moo lalu ci Sweet Beauté ak yeneen yi nga xamante ne dina ci amee peut-être que dinañu am occasion un jour toog yaatal ko bu baax a baax donc boobu muy deux mm-hmm. troisième bi mooy plainte bi nga xamante ne policier boobu di Frédéric Nappel mm-hmm. daf ko décider pour porter ko plainte Ousmane Sonko ak accusation yi mu ciy tudd mise en danger de la vie d'autrui ak ak yeneen ak yeneen donc foofu yaakaar naa ne jotaay bi passé am na lu ñun ci junjoon mais bu ko laajee ci jotaay bi tamit également dinañ ci leeral beneen mais plainte boobu déposé gu ko wala dafa décidé déposé nga wax waaw dafa annoncé manifester intention def ko waaw léegi matérialisation bi nag la xaar donc euh, troisième boobu moo doon troisième quatrième bi mooy bi nga xam ne moom moo war a am tey mooy procédure Ousmane Sonko contre Mame Mbaye Niang mhm. dinañ ci ñëw léegi parce que boobu tey jii ne la war a tijji fële ca tribunal bu Ndakaaru te dégg nga déclaration bi Ousmane Sonko def démb ne dina ca teew lan moo fa mën a xew lan moo ko fa mën a fekk yooyu yëpp dinañ ci ñëw mhm. cinquième bi mooy recours bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko devant la chambre d'accusation xam ngeen ni doyen des juges dafa jël dogal ne dossier bi dañ koy yóbbu ñu àtte ko avocat Ousmane Sonko nag mhm. viser Ousmane Sonko viser mhm. ci même biir procédure boobu noonu ba ñu demee devant ci fële nga xam ne moom mooy chambre d'accusation mhm. am na beneen sàkkuteef boo xam ne avocat Ousmane Sonko demandé nañ ko mooy dañoo demande chambre d'accusation maanaam cour d'appel mhm. mu saisir conseil constitutionnel pour inconstitutionnalité ordonnance bi nga xamante ne doyen des juges jël na ko ba renvoyer en accusation mhm. donc léegi chambre d'accusation moom saisir na conseil constitutionnel pour wax ndax ordonnance de renvoi bi maanaam dogal bi doyen des juges mhm. maa xam jàll jël na yóbbu day yóbbu dossier Sweet Beauté ñu atte ko ndax loolu dëppoo na yoon waaw wala déet parce que avocat yi ñoom dañoo gis ne dafa yoo xamante ne ñoom listé nañ donc boobu tamit procédure boobu ñi ngi xaar ci conseil constitutionnel mu àddu ci. Mm-hmm. ñi ngi xaar également. ci chambre d'accusation parce que li nit ñi bi jar mooy conseil constitutionnel moom du wàllum élection rek lay lijjanti bu weesoo wàllum élection maanaam xool ñan ñooy doon candidat ak ñu dul candidat ak joxe résultat élection mhm. daf ci bokk ci lépp loo xamante loi boo xamante ne ak constitution bi conseil mhm. conseil constitutionnel mhm. rek du jëm ci wàllum élection donc euh, ci compte bi six procédures mu ngi noonu procédure pour chambre d'accusation bi ak liberté xam moom mooy conseil concerné septième procédure bi mooy dossier Sweet Beauté nga xam ni enquêtes yeeg investigation yeeg lépp jeex na lenn képp moo ci des ñu jàpp date sangam ni dañuy dem procès bu dee procès dina am mhm. mais procédure bi septième bi nii procès bi wóorul mu am mhm. ndax am na ñaari recours yoo xam ne avocat Ousmane Sonko def nañ ko benn bi chambre d'accusation beneen bi conseil constitutionnel donc bu fekkente ne jox nañ leen dëgg foofu ça veut dire que procès euh, du am mhm. parce que bu ñu leen joxee dëgg mooy dañuy infirmer ordonnance euh, doyen des juges bi te dans ce cas euh, conséquence immédiate bi mooy procès du am huitième bi mooy euh, ñi ñu sutee Sonko boys wala les pro Sonko. nga xamante ne jamono jii nii plus de deux cent arrestations politiques am na à travers tout le territoire national am na ci yoo xam ne Dakar la am na ci yoo xamante ne Diourbel la am na ci ñoo xamante ne fële nga xam ne mooy Tambacounda ak dans diverses localités du Sénégal. am na ci ñoo xamante ne placé nañ leen sous mandat de dépôt maanaam dem nañu prison. am na ci ñoo xamante ñi ngi retour de parquet maanaam jóge nañ garde à vue mais demaguñ prison ñi ngi ci diggante bi maanaam demuñu àjjana demuñu safara mais ngi ci diggante bi xaw ma siraat ngi ci ñi ngi ci ah laxraaf waaw këñ ma ngoog retour de parquet moom pour ñu a comprendre nañ ko jàppee ngi ci diggante bi xamaguñ nag fan la ñu jëm ci ñaari loolu mooy retour de parquet maanaam jóge nañu garde à vue passé nañu état bu garde à vue mais demaguñu prison jëlaguñ décision de mandat de dépôt léegi ñu ngi ci diggante bi nag di xool nag ñu ñu xool ndax ban lañ leen di dellowaat ci ñaari mais ñooñu dañ leen di bàyyi ñu dellu seen kër wala dañ leen di téye non non dañ leen di téye ah retour de parquet dañ lay téye da ngay dem police ngay fanaanaat mhm. après nag ngay ñëwaat pour que ñu xool ndax dañ lay libéré wala dañ lay dañ lay placer sous mandat de dépôt donc loolu donc bu ñu doon xool par rapport ak statistiques yi mën nañu jàpp ne ne police Diourbel 69 arrestation moo am ci ñi nga xamante ñoom ñoo xam ne ay manifestants lañ am na ci ñoo xam ne ay élèves lañ am na ci ñoo xamante ne ay mineurs lañ am na ci ñoo xamante ne également ay responsables politiques lañ bokk Pastef ci biir 69 arrestations yooyu am na ci 30 14 euh, xam ne dañ leen may liberté provisoire maanaam dañ leen bàyyi bàyyam ndéggandiku hmm. te bokk na ci ay na ci également ay yi nga xamante ne dañ leen jàppale woon rek ci bi manifestation yi hmm. na ci 34 personnes yoo xam ne dañ leen a placé sous mandat de dépôt maanaam hmm. jël nañ décision ni ñii dañuy dem kaso te Serigne Assane Mbacké ci la bokk am na ci également ñoo xamante ne 21 yoo xamante ne ñoom retour de parquet la ñu am mooy comme li ñu doon wax léegi rek demaguñ àjjana demaguñ safara ñu ngi ci diggante bi toog di xaar mm-hmm. te ñooñu ñoom xaadim xaadim njaay ak ñeneen ak ñeneen ci la bokk mm-hmm. donc loolu mooy procédure bi concerné fële nga xamante ne moom mooy euh, Diourbel mm-hmm. boo ñëwee fii Dakar le 2 février muy jour bi nga xamante ne ci la moo doon euh, procès Ousmane Sonko contre Mame Mbaye jour bi muy na quinze personnes yoo xamante ne arrêté woon nañ leen cité kër góor gi ci biir 15 yooyu 12 yi ay majeur lañ 3 yi ay mineur lañ. xam nga majeur ak mineur Sénégal bokkuñ tribunal yi leen di atte bu dee mineur yi tribunal pour enfant moo leen di atte. Mhm. bu dee majeur yi ci la leen di yóbbu euh, juridiction de droit commun. donc 3 mineurs yi tribunal bàyyi na leen. Mhm. dañ leen def lu ñu tuddee renvoi des fins de la poursuite ils ont été renvoyés des fins de la poursuite. Mhm. donc loolu nag ab décision bu lay seetal la rek mais ba léegi bokkul ak relax. parce que bu fekkente ni relax la relax pur simple mooy délit bi ñu lay toppee am na. mais du yow mi ñu indi fii yaa ko def. relax au bénéfice du doute mooy. Mhm. tribunal ne waxul yaa def waxul yi ñu ñoo defoo mais mhm. amuñu ay preuve pour condamner la loolu mooy relax. mais renvoi des fins de la poursuite mooy délit bi ñu lay toppee sax amul. balaa ñuy mën a wax ni yaa ko def wala déet donc trois mineurs yooyu yëpp tribunal bàyyi na leen léegi tamit tey jii na tribunal di joxe atte bi dogal bi nga xamante ne moom la kii de toute façon am na ci ñoo ne procureur sàkk woon na ñu bàyyi leen am na ci ne euh, sàkk woon na également ñu tëj leen juróom benn weer mm. donc bokk na ci bon boo demee fële ca Tamba amoon na fa également ay arrestation yoo xamante ne amoon na ci et cetera et cetera mm. boo ñëwee fi Dakar am na ci décision de mandat de dépôt yoo xamante ne ku ci mel ni Amin Anibal Jim placé nañ ko sous mandat de dépôt ku ci mel ni également ki nga xamante ni moom mooy euh, ak yeneen ak jeunes yu bëree bëri ah arrestation yu bëri nañ ñoom Daouda Kaloga ñoom Azoura Fall mm. ñu gën ko xam ci Azoura ak yooyu yëpp bokk na ci li nga xamante moom mooy am donc ñu ci bëri dem nañu prison ña nga mandat de dépôt mm-hmm. ñeneen ñi ña nga garde à vue ba léegi ñeneen ñi ñu ngi nag ci retour de parquet am na ci ñoo xamante ne nag libéré nañ leen bàyyi nañ leen mm-hmm. donc dixième procédure bi nga xamante ne peut-être mën nañ ci tudd Sonko wala boog ay jegeñaale mooy li nga xamante moom mooy dossier boobu ñeel appel à force spéciale bi nga xamante daanaka lim gi dooleeku na parce que ci arrestation yi ma fi tudd am na ci ñoo xam ne dañ leen dugal ci groupe bu force spéciale te Hannibal Djim ci la bokk na ci groupe boobu nga xamante dañoo décidé dugal donc voilà dix procédures yoo xamante dafa concerné Ousmane Sonko wala ay jege ñaaleem mhm. am ci yoo xam ne moom Ousmane Sonko moo porté ñeneen plainte am ci ñoo xam procédure yoo xam ne dañ ko porté plainte am ci wax ni que dañ ko jàpp ba pare pour xool déjà yan chef d'accusation la teg ci ndoddam mais après euh, euh, ba ñu fësalee wala ñu ba ñu biralee euh, chef d'accusation yi on a vu que dañ ko chargé non seulement mais yu graaw graaw lañ koy toppee yoo xamante ni jamono ji mhm. on a l'impression que sénégalais yi bàyyiwuñ ci xel torop waaw bàyyiwuñ ci xel ndax boo xoolee daanaka tuuma yi ñu teg ci Hannibal Djim yëpp mën nañ ko tënk ci ñetti tuuma mhm. benn bi mooy jiiñ nañ ko lu jëm ci wàllum offense au chef de l'État mhm. jiiñ nañ ko également lu jëm ci wàllum euh, atteinte à la sûreté de l'État mooy article quatre-vingt. Mm-hmm. jiiñ nañ ko également lu jëm ci financement yoo xamante ne c'est pour euh, ay euh, compromettre la sécurité publique renverser régime ak yi mel. Mm. xam nga man li may njëkk a leeral sénégalais comprendre ko mooy lan mooy article quatre-vingt parce que yaakaar naa nit ñi dañ koy dégg rek. te comprendre ñu bu baax a baax mooy lan. Mm. ba noppi tamit maanaam li ñu koy tuumal ay nit dafa dem ba fréquent bari ba nga xam ne dañ ko ñàkkal fayda alors que amul délit bu gën a garaaw atteinte à la de l'État. voilà un délit boo xamante ne ñi koy jiiñ mooy ñiy def coup d'état. coup d'état donc Hannibal Djim mhm. dañ ko teg jiiñ tuuma boo xamante ne tuuma yi normalement ñi ñu ko war a teg mooy ñi ñuy jiiñ wàllum coup d'état. Mhm. beneen bi mooy financement bi ñu koy jiiñ mooy financement ñi nga xamante ne dañ leen di financé pour que ñu renverser régime. xam nga tuuma yu garaaw a garaaw a garaaw yu extraordinaire lu ñu jël teg ko ci kaw lenn lenn la fi def ci côté euh, financement te du loolu sax nekku ni moom mooy génnee kopparam mhm. mais Koppar Express la instauré sénégalais yi jàppal ma jàpp ku ci nekk foo ne que tu sois fii au Sénégal wala à l'extérieur nga am opportunité xëy na pour dimbali kenn koo xamante ne xëy na dafa euh, subir ay préjudice wala yu ni mel ñu ne la génne li nekk ci sa poche nga jàppale nit ñi mhm. Kopar Express je pense que c'est différent de xëy na euh, financement pour renverser euh, état comme ñoom ni ñu koy waxee voilà waaw xam nga li ci doy war mooy xam nga Kopar Express c'est une société légalement constituée bu am ay këyitam ay lépp muy benn deuxièmement cagnotte yi ak wala bokk yi xamante ne dafay am yëpp publique ñëpp di ci teg seen bët procédure légale boo xamante ne boobu ba léegi état du Sénégal mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi ñoom ñoo nangoo jox koppar exprès kayit ñangu ñu établir fii ci réew mi ñu seetaan ñuy lancer ay cagnotte yoo xam ne depuis combien d'années ñu ngi koy def mhm. musuñ ci wax musuñ ci am problème voilà léegi maintenant puisque cagnotte yi ñuy lancé nekk na ay cagnotte yu conséquent mhm. nekk na également ñi koy def peut-être que ñoo xam te d'accord ñu ak nguur moo tax ñu jëm ay tuuma sénégalais yëpp xam nañ ne Hannibal il est innocent deful dara mhm. liñ koy tuumaal yëpp dara amu ci lépp ay caaxaan la mais léegi lan moo tax li njaaxal li ñu mooy dañoo jël ay tuuma yu garaaw a garaaw teg ko ci kaw buñ ko buñ ko buñ ko buñ ko maanaam buñ ko oyofal atteinte à la sûreté ak ñu ñuy financé pour ñu renverser ay régime tuuma yooyu la ñu jël teg ko ci Hannibal Djim mu nekk ay mbir yu grave yoo xam ne xam nga ne loolu yëpp amul mm-hmm. Hannibal Djim fan la mënee renverser régime fan lay jëlee ngànnaay yi fan lay jëlee arme bi dafa am contrôle ci arme bi euh, ci ci ci ñi nga xam ne ñoom ñooy arme bi wala takk der yi li ma bëgg a laaj li ma bëgg laaj Pape moom mooy déjà alors tuuma yooyu ñu ko ñu ko tegal yëpp en fait yan fee moom la ñu mën a teg ci table ñu ne lii la def moom boo tax ñu daal di koy tuumaal lii mm-hmm. au delà de Euh, du fait que mu encouragé ñu ñu ñu ñu ñu xool xale boo xamee ne que dafa feebar ba ba bi ci bi ñu mujj euh, gis ne que def na ko ci wàllu social. Mhm. xale boo xamee ne que dafa feebar amoon amoon problème mu biir je sais pas mais ñu dugal Copper Express ba il alhamdulilah ba xale bi présentement. ñu ngi mhm. nekk di faju mhm. am na si aussi yeneen ci ay nit ñu nga xamee ne dañ nekkoon dans le besoin ñu gis nañ ci ay cas yu bari. mais mais maanaam lan lañ ñu tegal ci table ji ne maanaam bi muy dugalee Copper Express ak X. lii la ci seetlu nañ ne xaalis bi fi mu jaar leerul te je pense que Copper Express aussi maanaam y' a pas plus transparent que ça. Mm -hmm. véritablement cest à bu fekkee ne aussi am na lu luñ ci mën a def lu lu lu maanaam loo xam ne que dafa dafa wàllum njuuj njaaj la. Mhm. je pense ce qu'il devait faire en premier moom mooy ñu tëj. alors structure boobu nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo yor Coppa Express balaa di dem ñoom fa la financement di jaar loolu moom moom moom moo moo li gën a cohérent quoi au lieu dem jël benn nit bu nga xamee ne que def dundam normal ñëw Sénégal ngir takk soxna mhm. balaa séjour di jeex ñu ne ko coppet dugal ci kaso bi mhm. cest dire yaa dafa am ay aspects yoo xamee ne que a absolument aucune cohérence dans la manière bi ñu ko bi ñu ko jàppee kon donc li nga xamee ne que seetlu nañ ñu ngi koy def ci aspect politique bi moom moo tax ils sont en train véritablement de se mettre le droit dans l'œil parce que le fait que tey ñu jug am pour faagaagal ku mel ni Hannibal Djim nga xamee ne que mhm. c'était une personne très discrète mhm. pratiquement kenn xamu ko Copper Express ñaata at ñu ngi koy dégg ñuy def ay affecté on a rarement ngay doon on entend on pas son nom mhm. dégguñu woon sax turam donc pourquoi ñu bàyyi ba alors dimension politique bi di ci gën di commencer di di feeñ cest à tey jënal Ousmane cent trois cent trente-trois milliards pour pour kii ne dañuy defal Ousmane Sonko donc euh, euh, voiture blindée à euh, cent cinquante entre autres yeneen ci ay mbir quoi c'est-à-dire mhm. dafa doy waar quoi Pape d'accord xam nga léegi maa ngi la naan ñëpp Hannibal Djim dañoo jël tuuma yoo xamante ne ñiy def coup d'état ak ñi ñuy financer pour ñu renverser le régime ko kii parce que bu weesoo atteinte à la sûreté de l'État dañ koy jiñ jëm lu ñuy ji dañ koy jiñ mhm. délit bu ñu tuddee complot contre la sûreté de l'État alors bu dee yenn preuve la ñu teg ci table bi dama la mhm. amul benn firnde bu leer naññ boo xamante ne am nañ ko ci Hannibal Djim il est totalement innocent amuñu lenn dañ ko bëgg a problème rek tout simplement parce que àndul ak régime bi parce que boo xoolee li tax loolu xam nga semaine bi passé maa ngi lay wax ni avocat ba mu demee pour lan lañ ko fa mën a tuumaal donc loolu mooy li nga xam moom moo ci am maintenant bu fekkente ne dañ koy jiiñ complot da doon jéem a nguur gi est-ce que am nañu ay firnde yuy wane ni dafa am ay ñi ay puissances étrangères yoo xam ne déggoon na ak ñoom pour xool naka la ñuy renverser régime bi. Mhm. financement boo xamante ne ak Copper Express lay jaar. Copper Express nee naa leen c'est une société légalement constituée c'est une société de droit sénégalais du société française wala leneen ak leneen parce que. c'est la localisation du siège d'une entreprise qui permet de déterminer la nationalité d'une entreprise laala moom loolu moom ñëpp xam nañ ko état du Sénégal moo bàyyi Copper Express mu établir sur son territoire ñu am de euh, këyit yu leer nañ ñuy waneen lii la ñuy def te la ñuy def nëbbu ko dañ ko ne fàng ñëpp teg ci seen bët mm-hmm. te procédure yi pour mën a lancer foofu cagnotte ba mën a recouvrement du procédure caaxaan pour ñu ko xam. voilà maintenant comment se il que loolu lépp continue di fi am depuis des années musuñ ci wax musuñ ci am problème. mais parce que ñi nga xamante ne ñi koy lancer wala ñi koy organiser peut-être nekkul ñoo xamante ñu ñu ñu dëppoo ak nguur gi lañ. wala parfois ay militants ñoo koy defal seen leader politique wala pour financer seen benn activité politique. Mm-hmm. ni dañ koy teg tuuma yooyu noonu financement en vue de xaw ma lan compromettre ak ni parce que gis nga Sénégal Sénégal xamul tax mu doy waar dañuy jël ay délit tuuma yu garaaw a garaaw teg ko nit sur des aussi légères mhm. dafa mel ni blanchiment de capitaux rek réew mi ku jug ñu jiñ la blanchiment d'argent ku jiñ ñu blanchiment gis nga tey jii ne man tey su ma amoon problème su ma amoon problème ak yoon nekk ci loxo yoon mhm. ñu gis na yow envoyé woon nga def nañ ko fi booy jënd sërëm bu mbokkal ndey ak bay envoyé ko wari ñu naan ko blanchiment d' argent dem arrêté ko pour jiñ ko blanchiment d' parce que ay ay reçu wari yu ñu gis rek ñu ne voilà blanchiment d' mm. mais maître Doudou Ndoye leen lim leen kii blanchiment d' argent maître Doudou Ndoye daf jour boobu daf leen a jox une leçon magistrale aux enquêteurs et aux magistrats ne leen mm-hmm. blanchiment d' mooy xaalis boo xamante ni origine bi lewul fu ñu ko jëlee lewul mm-hmm. ñu bëgg koo dugal ci maanaam foo xamante ne dafa lew mais dès l' instant que bi dafa lew rek mënuñu wax blanchiment d' mm-hmm. la même manière également da ngay am jafe-jafe ak yoon ñu jël sa oto confisqué ko police nga def say pexe ñoo jël ko ñu ne la ñu accuser la de vol. Mm-hmm. alors que nit mënoo sàcc sa alal. mënoo sàcc sa alal dafa am témoin yoo xam ngay euh, ñëw aussi dañu gis ni que appel à l'insurrection aussi lu ñu yàpp la fii au Sénégal. Mm-hmm. Euh, appel à manifester wala euh, invité jeunes yi xëy na trouble à l'ordre public yooyu noonu je pense que bokk na ci li tax sax ñu couper signalu Walfadjri donc yooyu aussi ay chef d'accusation la yoo xamante ni fat fat ñu jiiñ la ko fat fat ñu andi la ci ay jafe-jafe alors que duñ ko teg fenn. moo tax gis nga gis nga gis nga parfois peut-être à l'insurrection xam ngeen lan mooy insurrection <laughs> est-ce que gars ñi xam nañu luy insurrection da mm. nga gis xale bu ndaw un jeune de rien tout parfois sax mineur ñu arrêté la jiñ la appel à l'insurrection insurrection bu ci réew insurrection bu amoon ci réew mi mm-hmm. dinañu tal leneen lu dul toog fii naan dañuy dañuy petit dafa garaaw mm-hmm. donc franchement dafa nekk loo xamante ne tuuma yi ñuy teg ci nit ñi war nañ ko xoolaat bu baax a baax par exemple li ma bëgg a xam mooy nit ci wàllu ci wàllu yóbbu ko tëj ba noppi di doog xool li mu def. <laughs> wala dañuy xool li mu def ndax jar na tëj am déet ñu doog koo jàpp dem tëj. waaw li yoon wax mooy. nit mënee su koo jàpp. lu dudul ne c'est-à-dire que même bu fekkente ne leeragul ni li preuve la mais boo amee ay soupçon mu nit mënoo ko jàpp tant que amoo ci moom ay soupçon maanaam nga gis ni kat am na ay firnde yuy wane ne kat lii. peut-être taxees na ci lii. Mm-hmm. loolu muy benn wala ñu jàpp la flagrant délit loxo ci poos nga nekk di def jëf ji. wala tribunal nekk di def enquête ci benn dossier ñu tudd la ci ñu ñu ñëw ne dañu lay interpeller par rapport à ça donc tribunal ñoom bu ñu demandé soit mandat d'amener wala mandat d'arrêt wala man alag lu mun mënti doon avis de wala yeneen ak yeneen ñu sàkk ñu indi la dans ce cas nañu ñëw interpeller la ci base yooyu noonu. mais jàpp nit ba pare ne da ngay dem wuti luñ ko mais bu bu doon loolu la bu doon loi ni ñu koy doxalee nii loi da ko may mais tout le en sursis mën nañu fekk ñëw fii rek neexool leen rek ñu ñëw jàpp la yóbbu la. Mhm. sur quelle maanaam nit balaa nga koy jàpp dafa war a tegu fu wóor loolu la loi wax. Mhm. soit da koy jàpp loxo ci poste flagrant délit wala dégg maam mu mu mu nekk koo xamante ni gis nga sax ay indice de preuve mhm. yuy wane ne kat kii taq na ci lii lu ci mel ni par exemple meurtre bu amoon fenn ñu découvrir sa kër yëre bu taq deret wala paaka bu taq deret ak mhm. yoonu maanaam ay indice quoi yuy wane ne yow mi kat mënees nga taqees nga ci lii mhm. wala boog waa tribunal di la wër demander police wala gendarmerie ñu ñëw jàppale indi la pour enquête la wala tribunal convoqué la nga bañ sur ces bases là dama la convoqué jël si la man li may wax lu wàlla lay wax de li may wax ni code pénal ak code de procédure pénale ñoo koy wax ku la wax la contraire nag nañ la indil wax mhm. police convoqué la xam nga fii Sénégal moom léegi convocation dañ ko bëgg supprimer ci réew mi dañ lay soxla rek ñëw na këyir la bàyyi la ba nga génn ñu këppatal la mhm. comprendre loolu lañ bëgg a xew ci réew mi mhm. mais da xam nga loolu moom ñëpp d'accord nañ ne c'est illégal deuxièmement les convocations verbales soxla nit téléphone woo ko wéyi man la commandant diw man la commissaire diw man la inspecteur diw enquête tàngam ñëwal wuy ma amul fu ko loi diglee convocation c'est une da nga koy bind. Hmm. yóbbul ko nit. tribunal mu ñu du ñu convoqué nit verbalement jamais. parce que hmm. yoon kayit la xam parce que juge bi bu ñëwee di xool dossier pour xool kii ñuy àtte ñëw na waaw wala déet. Hmm. dafa am lu ñu tuddee retour de citation mooy kayit buy wane ne waa jot na convocation ba déchargé le juge bi bu ko gisul ci dossier. day renvoyé. day dàq di àtte bi di dàq di dàq di dàq di dàq rek. Mm. d'accord mais gisaguñu juge wala procureur bu jël téléphone woo ni di ko convoqué. Mm-hmm. donc convocation verbale bon peut-être pour yombalal enquêteurs yi seen liggéey parfois nit ñi dañ koy accepté dem. Mm. mais bu fekkee ne dañ ko bëgg a def règle ça pose problème donc léegi nag beneen situation bi mooy bu la police joxee convocation nga bañ. Mm-hmm. la loi fait obli leur fait obligation de délivrer une seconde convocation dañu la war a indil une deuxième convocation. obligation soo bañee amuñ droit jël si la képp ku la ne police wala gendarmerie bu ñu la convoqué war nga war a ñëw am nañ droit jël la ne leen ban loi moo ko prévoir bu ñu la joxee convocation nga bañ a ñëw faw tribunal délivrer këyit buy wane ne kii dañ ko war a jël si par force ñu soog am pouvoir ñëw jël la parce que lépp loi da ko organiser ba ci heure yi takk der war a dugg ba cinq heures du matin takk der amul droit dugg ci kër jaamur ak lu la mënti tax a jóg mm. lépp da ko organiser mm-hmm. jalgati la te mën na am ay conséquences source de nullité la en droit. voilà donc lii mooy li nga xamante ni moom mooy yoon. maintenant le fait que Sénégal nag ñun ñu bëgg a renverser lépp. lépp lu lu ñu maye duñ ko respecté te ñi ciy jàpp am na ñoo xam ne nanguñ sax seen avocat euh, kii leen assisté leen. Mm-hmm. donc ça pose problème lii moo xew ci réew mi nag lii de mooy xew ci réew mi. xam nga tey euh, damay waale ci euh, euh, rubrique justice bi maa ngi nuyu Fadilou Keita. sunu président Fadilou mm. Keita di président Adam. Mm-hmm. éleveur yëpp nekk ci ginnaawam muy association bu mag boo xamante ni récemment rek lañ génn ci quatorzième édition bi. Mm-hmm. ñu ngi ko ci doon séentu yàlla dogal na ñëwul mais ak fu mu manti nekk rek Fadilou Keita président ñu ngi lay ñaanal jàmm ak salaam. Mm-hmm. xam nga lan moo am ci réew mi te dafay tax nit ñi fippu dafay tax nit ñi. ku merul woon mer euh, ku àndul woon ak tey ji opposition bi sax nga ànd ak opposition bi ndax xamal lan moo tax jaay doole baaxul mm-hmm. làq doom dóor doom mm-hmm. tey ki fareek euh, yow côté boobu nga nëgg sëral lépp lu mu def gisoo euh, te am na ñu fare ak état bi mm-hmm. def lu gën a pire fuuf ñi ñuy jàpp di tëj ñun ay sénégalais lan amuñu ay appartement Dubaï amuñu ko France amuñu ko États-Unis fii lañ juddoo fi lañ yeroo fi la ñuy deeyee tey réew mi kenn gënuñu ñu cee bokk mais nañu bàyyi dóor doom laax doom nañu teg dëgg ci kaw dëgg mais euh, maa ngi dégg maa ngi gis bërki démb xam nga démb la xam bërki démb Assane Diouf mu ngi koy wax ci conférence de presse xam nga kañ la daan wax leneen lu neexul kenn mais waxam boobu dafa ma amal solo torop torop torop euh, nit dafay fiir nit ñu jël tëj te doomu kilifa fiir na fi nit dara du xew nit dafay def euh, jël alalu réew mi ñu nga xam ko wala ñu gis ko mhm. dara du xew mhm. wala quelque temps ñu bàyyi ko nit nga gis ko giñ ko rek saga maanaam man nañ cee wax aspect yu dul jeex mhm. yoo xamante ne kaan lu ne fàng daaj la ay dëgg yoo xamante ni lu mu nekk ci réew mi euh, dëgg bu ñu ko tegee lu waa ñëpp xam na ni dëgg la nekku fi pour ma sàmb nekku fi pour ma demb dafay nekk pour ñëpp kon nag yat bi nan ko teg ku mu war a dal nan la dal fareek man muy opposition du pouvoir mhm. euh, tey da ngay dem ba ku fara ku faloogul tey jii lu nekk ngay waxee mm. terme bu nekk nga utiliser mais boo dee ba jël nguur gi rek wala boo dee ba nekk ci nga daan gis sax kenn ku daan génn ci dañu dem ba tey Sénégal dañoo am habitude boobu da ngay gis ku génn tey xas président la jox la benn fonction nga ne miit noppi mm-hmm, mm-hmm. est-ce que tey suñu jikko yooyu ko commencé mm-hmm. gis ku bëggagul di wax lu ne am yërmande di wax soo demee ba jot commencé mbugal doomu aadama yi nekk na lu doy waar mais Pape hier on a entendu euh, le leader de Pastef Ousmane Sonko dire que euh, ordonance de renvoi bi euh, euh, euh, le juge xam Diallo dafa bind que Ousmane Sonko est un psychote psychopathe ci mhm. ordonnance de renvoi bi mu nekk mhm. loo xamante ne ñaawlu na ko mais est-ce que moom en tant que juge ci mbir bu nga xamante ne nee dañ ciy dem procès am na droit bind loolu ci ab këyit bu nga xamante ni day firndeel lu ni mel. waaw man man ordonnance de renvoi bi man gisaguma ko liiraguma ko. Mhm. peut-être que Ousmane Sonko bu fekkente ne wax na ko ci am peut-être am na ci ay information euh, mhm. soit am na ko wala ay avocat am jox nañ ko ci information bi mhm. mais li leer ba leer mooy juge moom li ñuy xaar ci moom mooy mu yem ci li nga xamante ni moom mooy les faits rien que les faits de la procédure mhm. loolu mooy xam ne li nga moom mooy li ci war ba pare tamit euh, beneen fànn gi mooy lépp bu fekkente ne dafa am qualification bu mu koy nit par rapport ak état état santé nit ki moo mën moom ay dof yoo xam ne dañoo nekk ci kaso bi mhm. lan moo tax libéré wuñu leen parce que amagul këyitu docteur mhm. buy wane ni ñii seen xel neexul pour que ñu mën leen bàyyi xam nga am na ci jotaay yoo passé maa leen doon wax histoire Abdoulaye Sidibé benn déficient mental boo xam ne bañ ko indee tribunal di ko àtte dafa summee comme ni ko yaayam juree mhm. euh, ci prison ba day dem ginnaaw kër ba pare di ko lekkaat oh. mais terewul te lañ ko condamné fekk tëj ko quinze tout simplement parce que indiwuñu kayitu docteur buy wane ni wérul parce que ci loolu rek la juge mën a sukkandiku xam nga looloo doy waar ci justice mhm. justice ni muy fonctionner mooy mën nga teg sa téléphone bi Salma ma sàcc ko mhm. plateau bi studio bi ñëpp gis ne maa sàcc sa téléphone bi mhm. mais justice bu amul preuve mënul ci mën dara xam nga ñëpp xam nañ ne kii wérul parce que ku ñuy juger nga summee ko comme ne la sa yaay juree ça veut que wéroo aujourd'hui Ousmane Sonko war a wuy ji Mame Mbaye Niang mu mel ni mhm. nag ba def na déclaration pour dire que euh, dina dem defeere ji ci convocation boobu noonu mais il a appelé aussi au Sénégal les Sénégalais xëy na ñu gunge ko donc lan nga ñu mën a wax ci euh, li nar a xew foofu. waaw donc foofu euh, daanaka li mbir mi mën nañ ko retenir. Mhm. atte ko tey tout comme mën nañ ko renvoyer. Mhm. c'est vrai que ñu ngi wax waxu renvoi ferme waaye tribunal moom yàgg na fi décider renvoi ferme ba pare. Mhm. Euh, daal di renvoyer renvoi mooy renvoi boo xam ne day wax ni bii mooy dernière fois ñu koy renvoyer. Mhm. te renvoi ferme après plus de trois renvois la ko tribunal daan def. Mhm. mais bu ñu ñëwee premier jour rek décider euh, ne dañuy koy def renvoi ferme loolu c'est inédit. d'accord de la même manière également affaire nouvelle moom saa yu ñëwee c'est systématiquement renvoyé. donc le fait que bii jotaay bi paase ñu bëggoon retenir bi yëf yi yëf yi tey renvoi bu mu amee bu amaatee bu mu leen bett parce que mën na ne. Hmm. mën na am avocat yu bees soog a dugg ci dossier bi bëgg comprendre ce qui se passe euh, renvoyé. Hmm. mën na am tamit également ci partie au procès am kenn ku ci absente donc lu motif yi mën na nekk donc renvoi mën na am ñu retenir ko également atte ko ci bés bi mën na am. Hmm. buñ ko attee ci bés bi également mën nañu joxe atte bi tey ci bés bi mais de plus souvent dossiers yu mel ni daanañu joxe verdict bi ci jour bi dañ doon mettre en délibéré jàpp ba beneen date nga xam ne après magistrat dañuy gisee seen biir concerté waat xoolaat yëf yi mm-hmm. mais xam nga Sénégal moom bu ñu bëggee accélérer yëf yaa ma gën a xam nu muy demee de la même manière également euh, li leer ba leer mooy euh, ñi ngi mu concerné dañuy comparaître libre mm. bu fa amul ni ñuy ñëwee noonu la ñu war a ñibbiwaatee mm. waaye extraordinaire nag mën na fa xew parce que procès il faut s'attendre à tout incident mën na am mhm. jàppante mën na am foofu noonu diggante parce que incident yi man fi ma ko gën a séntu sax mooy diggante Ousmane Sonko ak procureur foofu moom incident mun du fa mën a ñàkk mm. jàppante bu ne tey dinañ ko jugé di ngeen dégg ne jàppante am na diggante Ousmane Sonko ak procureur comment ça di am na diggante Ousmane Sonko ak également ñi nga xamante ñoom ñooy avocat Mame Mbaye Niang di nga bi gën également incident am na diggante Ousmane Sonko ak Mame bu mhm. fekkente ne teew na parce que Euh, on a vu peut-être wala bàyyi nañ xel xëy na kàddu yu tegginewul wala yu déplacé yi nga xamante ni xëy na am na am na habitude di ko wax à l'endroit de Ousmane Sonko donc tey jii ñoom ñaar bu ñu jàkkaarloo. Mhm. en tant que kilifa ak kilifa. Euh, yooyu am ci donc on peut s'attendre à des dérapages face à face de tous les dangers mm. xam nga mbër yi dañ doon woote face to mm. face waaye face to face bu tey bii nag moo jëra soraale parce que lu ne mën na faa xew mm. lu ne mën na faa mën donc on attend de voir donc de toute façon ci kanam tuuti la lu fa tukkee rek moom. est-ce que on est-ce est-ce qu'il y a possibilité que tey tey tey tey tey. Mhm. ñu def jugement bi tey am délibération bi tey tey. waaw loolu mën na nekk. Ah. verdict mën na génn ci jour bi tout comme mën nañ ko mettre en délibéré mais bu fekkente ni dans des yoon ak ni tribunal doxalee mooy yu mel nii daanañu génnee verdict bi ci jour bi mhm. mais bu fekkente ni nag mbir mi parfois dafa viser ay dossiers politiques mhm. parfois mën nañ taf tafee affaire yi génne ko ci génne dogal bi ci jour bi mais lii yoon mooy dañ koy mettre en délibéré bu dee retenir nañ ko parce que renvoi mën na nekk mais bu dee retenir nañ ko ni juge amee possibilité mettre en délibéré noonu la amee possibilité également joxe verdict bi le jour même yaay toog xaar li nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy at moom mooy at bi bi Adji Sarr doon demandé euh, tey mën nañu am avant euh, moo tax gis nga un procès il est toujours public loolu justement <laughs> ñi ñi koy ñàkk xam rek dafa mel ni nga ni je parle woon naa si bala en fait c'est vrai que am na ah, circonstances yoo xamante ni juge pouvoir may euh, yoon may na ko mu de nu mu tuddati décider huis mhm. bu fekkente ne affaire u mërs la lu jëm ci wàllum viol juge bi mën na def huis fii dossier de viol yu ci bëri day dem day dem huis mu am trouble ci salle bi maanaam gars ne foofu di coow nangu ñu dégloo juge bi mën na ordonné ñëpp génn. Mhm. ñu tenir procès bi à huis boo xam ne. Mhm. suñu milliard du a wax rek ah. suñu milliard du reste. moom man li ma bëggoon tëjee milliards yi xanaa waaw kooku de warta rees moom dañ nañ ko topp ba mu sës leneen li may tëjee mooy. Mhm. am na yeneen dossiers yoo xamante ni ñi ngi nekk di ko togg contre Ousmane Sonko. Ah maanaam ñi ngi nasaat yeneen pexe di organiser waat yeneen complot pour am yeneen yu ñu ko jiiñaat ñi ngi ko nekk di ko togg ci suuf. bu bokkut ak bu nappel bi. bu bokk bu yooyu yëpp am na yeneen yoo xamante ni ñi ngi koy nasaat ci suuf. est-ce kii bu bu pitax yi ah on on verra daal mais daal boobu boobu ku ko ci laal baa ngi lay xaar. mais daal nañu nañu nañu vigilant parce que gaañu duñ mës bàyyi. buñ la mënul jaar fii rek dañuy jéem a jéem a jaar fële. mais mais Pape nañ waxante dëgg nag Ousmane Sonko jamono ji buñ koy toppaat lan ci lan lay doon. mën naa doon ci lu ne. c'est une grande question. dama ko junj nii rek bàyyi. mais peut-être beneen jotaay dinaa ci gën a xuus. Mm. waaye daal ci ma li ma ci mën a wax mooy ñi ngi nasaat yeneen complot contre boo bëggee comprendre lan moo tax ñu ciblé ko. waaw xoolal kaaw Karim Wade ak Khalifa Sall c'est tout. politiquement am nañu poids électoral boo xamante ni mën na daaneel nguur gi fi ne ñu décidé ni dañ lañ def tout ba écarté la ne la doo dem élection te man man li ma gëm mooy. Mm-hmm. ma conviction profonde mooy. Mm-hmm. présidentielle 2024 bii ñu dëgmal. Mm-hmm. mënta am sans Ousmane Sonko bés bu ñu décidé ne Ousmane Sonko du ci dem man jàpp naa ne élection du am Sénégal. Mm. ndax sénégalais yi ñoo to son ta tàyyi ci képp koo xamante ne am nga poids électoral pour daaneel régime bi rek ñu xeex la écarté la Salma xanaa déggoo ren nañu def nañ ko Karim def nañ ko ah. Khalifa ñu bëgg koo defaat fii nii mm. est-ce ko nangu point d'interrogation. c'est la grande question <laughs> <laughs> na lool euh, euh, mu mel ni nag ñoom duñu taay duñu bàyyi ah ils sont dans leur logique mais euh, comme ni ko sénégalais yi waxee wala comme ni ko ñu bëri waxee même si kaaw Adji Sarr Ousmane ko jamono bi ñu doon wax ay procès moral Euh, même bu ko violé wul sekk nañu sénégalais qu'est-ce qu'ils góor la même bu dee moo ko def bëgg nañ l'essentiel na dem élection na gagné nekk suñu. preuve sekk yooyu sax amul. xanaa loolu moom moom moom day jeexal ay wax. preuve sekk yooyu sax amul. <laughs> waaw Adji Sarr moom mu ngi ci réew mi sax moom. ayca ah boo ci xamee dara wax ma <laughs> loolu la ñëpp di laaj. rassemblement bi waay. suba rassemblement bi. fii buntu Walfadjri. mi ngi noonu incha allah c'est à na Pape boo amee leneen looy wax. waaw leneen li may daanelee rek mooy xanaa lu vraiment situation bi nga xam ne dal na suñu deux collègues yi muy Mame Birame Wathie ak Pape Matar Diallo. waaw donc euh, mu nekk rek ci bokk rek ci agression bi ñu leen agressé démb. Mhm. agressé waaw dañu leen agressé démb. Euh, mu nekk loo xamante ne wax dëgg yàlla ñëpp a ngi koy ñaawlu rafetlu wuñ ko di wane rek. Euh, manifestation justement mhm. voilà. Euh, benn 4-4 boo xam ne joxe nañ sax matricule yeeg yooyu noonu ñoom ñoo wàcc ci ay nit tifaare leen ba pare ñëw song leen dal seen kaw wax dëgg yàlla ñu ngi koy naqarlu di ko méttitlu mhm. di interpeller les autorités yi nga xamante ne ñoom ñoo ci war a taxaw pour que ñu taxaw mhm. euh, di man moom personnellement damay interpeller les autorités policières ak la justice sénégalaise mhm. ak le procureur pour que ñu veiller à la sécurité des agents de Walfadjri surtout parce que bu weesoo ñaari agents yi nga xamante ne agressé nañ leen démb pratiquement waa Walfadjri moom dañ leen a ciblé mais gis nañ Coro Maxu Mandela am ñu ko intercepté woon bëgg a nangu ay téléphone mu leer la nit ñi ñëwuñu pour agresser ko parce que takk na ay bijoux yor na saak Euh, ñëwuñu viser loolu mais dañoo ñëw rek carrément pour jël ay téléphone am lan la ñu bëggoon yan information lañu bëggoon am ci moom waaw donc loolu tamit lu jar lu jar kii la moo tax agent Walfadjri fi ñu toll nii dañu a viser ci côté bu nekk mm. ñi ci gën a sonal nag mooy ñi nga xamante ñoom ñooy chroniqueurs yi maanaam ñi nga xam ne ñooy toog ci ci di def ay jàngat mm-hmm. euh, te te parfois critiques yi ñuy def peut moo bindoon xam nga boo demee RTS mm. opposant fa jàll luy critiquer nguur du mm-hmm. ñëpp dañ leen ko nangul mm-hmm. mais ba ci kaw loolu tamit ñoom ba léegi il peine à nangul wal fajir ligne éditoriale mooy féetewoo askan wi te ñun sax ñoo tane RTS. parce que ñun fu ñu invité opposition dinañ invité pouvoir. mais RTS moom benn dañoo bokkul sax nag. justement invité sax gis nga parfois nga parfois da gis ku la ku la ni bon émission sàngam équilibre parce que waa opposition rek fa nekk. te pourtant duñ ko wax RTS duñ ne émission bii nii waa pouvoir nekkuñ fa de. Sénégalais Sénégalais dañuy nga invité ku bokk ci pouvoir sax après invité ku nekk ci pouvoir ba pare mu bañ ne la du ñëw parce que yéen seen seen teel bi nangam ak nangam mais dafa am benn wax boo xamee ne que daf ko daf ko mosu wax mu ne ñun bu ñu Macky Sall jëloon wooñu may ku may ñu ku nekk milliard non ni ñu mel mel nañ ko ba pare. Mhm. munoo wax ak wax ak wax wax wax ba ñu soppee fii daal ku ñu fi may milliard jëlal nga lekk. Mhm. parce que xaalisu askan wi la sa xaalis la ku ñu fi jox jëlal lépp ne ko fuuf def say poos. teroo nga campé ci sa position di def li ngay def. ci am fulla la bokk de. parce que fi fi réew mi toll la. Mhm. donc li ma li ma doon li ma ko doon daaneel rek mooy. puisque yëf yi demee na noonu nag. et que les chroniqueurs là ak waa Walfadjri dañu leen a lu ngeen fi dégg ci agent wal fajari jàppale ni du dëgg complo la ab sos la. bu ngeen. non non non xaaral ma ñëw rek bu ngeen déggee ñu ne agent wal fajari sàngam. ah non yéen ay gor ngeen gàmmi leen yéen dañ leen di teral leen fuñ fu mu toll dañ leen di war di leen teral rek di di di di di leen bàyyi ngeen sañ si seen. sañ si bu rafet message bi ma bëgg lancer mooy. Mhm. de tout le temps dañuy jot ay alertes sur les agents de wal fajari. Mhm. li ma leen bëgg xamal mooy agent wal fajari lépp lu ngeen dégg ci ñoom fan yi di ñëw jàpp leen li du dëgg ab sos la ab complot la mhm. bu ngeen déggee ñu ne agent en Walfadjri sàngam fekk nañ ci otom drogue wala fekk nañ ci këram drogue wala fekk nañ ci appartement am drogue mhm. jàpp leen ni du dëgg ay sos la mhm. bu ngeen déggee egalement agent Walfadjri sàngam am na problème sàngam ak jigéen sàngam jàpp leen ne ab complot la boo xamante ne dañu koo lal bu ngeen déggee également ne agent Walfadjri sàngam problème bu ngeen mënti dégg ci agent Walfadjri ci fan yi di ñëw jàpp leen dara du ci dëgg ay complot la ak ay pexe yoo xamante ne suñuy noon ñoo ko nas pour daane leen parce que lu ne lu lu ne ñu ngi koy def. Mm-hmm. am na ci ñoo xamante ne du matin au soir depuis six mois ñu ngi leen di topp. am na ci agent Walfadjri yoo xam ne depuis un an ñi ngi leen di topp mhm. mënaluñ leen dara parce que gisuñ ci ñoom dara parce que li ñuy def lépp dañ koy teg ci yoon euh, voilà donc loolu moom lu xam nga loolu moom waxoon naa ko fi ay jotaay ay jotaay am na ci ñoo xamante ne da leen jar ñu ñëw dëkk ci luy ay appartement côté biir Walfadjri mhm. <laughs> voilà donc mi ngi noonu donc lépp lu jëm ci alentour Walfadjri mhm. moytul leen ma jaaykatu kafe yi moytul leen ma. taximaan yi. su génn taxaw rek taxi ne dara taxaw sa kanam. pareegu ma moytul leen ma jaaykatu kafe yi wër Walf Fadjri. moytul leen ma ci bërëbu jaaykatu kafe yooyu ña fay toog di waxtaan si moytu leen leen. Mm. bu leen fa toog mukk di waxtaan wala di yebbeeku ku leen fa cuq ci sujet bu leen ci dem moytu leen ma également jaaykat yi nga xamante ne ñoom ñoo leen di wër moytu leen ma également inconnu yi nga xam di taxawaalu diw sama soppe la diw maa koy gërëm diw maa koy li donc je demande à a ñaar mooy ñu renforcer la sécurité de Walfadjri mm-hmm. accès bi ñu koo méttil gën koo taral ba ku jot rek ku ku mu neex rek du ñëw dugg mm-hmm. euh, moom mooy su ko defee dinañu gën a loolu buñ taxawee dinañu gën a assurer la sécurité nga xamante ne ñoom ñoom ñooy agents yi parce que inquiétude yi ñaari mbir la insécurité bi ak tamit également ñi nga xamante ne pouvoir ñoo leen di yebal pour que ñu ñëw di infiltrer taxawaalu ci bureau jàmbur yeeg di naan ay dañu ay dañu yor ay mansani bu ñuy dugg di jaay ak donc yooyu yëpp nekk na loo xamante ne daal gaañ sama gars yi buñ ci buñ ci buñ ci muccee xam nga mënoon naa agent concerné bu ci nekk moo woo la ne la moytul nangam wax la ban pexe la mais dama jàpp dama préféré toog wax ko sénégalais yi dégg ko ba lu am ëllëg ñu xam ni kat waxoon naa leen ni lii mhm. ab pexe la boo xamante ni ñi ngi koy nas si ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñoom ñooy agent agent agent war fi itam dan moytu jox ma numéro diw tamit numéro diw numéro diw nga hmm. waaw ku la fi laaj numéro ku mu mënti doon bul ko joxe. Hmm. voilà mi ngi noonu bu jeex tax. daa fee na baal ñu. daa fee na baal dañuy fagaru. gaa yi kenn de. en tout cas. moytu ko xeeb. waaye on a vu bi. ku ci mën a gaare oto sax ba après ba feeg jëmmi sax boo mënee def ko jël taxi. Hmm. wala jël kalaandoo mais taxi bi ba na. ku ku ku ku ko ma si interpellé du benn du ñaar naan ma taxi bi njëkk ñëw bul jël bi ci topp bul jël xaaral troisième bi. waaw nga xool taxi man boo wóor abonné ci moom rek da ngay boo wóolu abu na ci moom rek. booy dem mu jël si la booy ñëwaat mu jël si la. c'est aussi simple mais mais mais boo wóolu. si comme nee na sa pap ñu ngi doon wax tout à l'heure que sa soxna wala sa jëkkër sax dañuy jaar ci moom. kon ah. ay taximan est-ce que yéeme na de ah. gars yi xam nga gars moom bu ñu la am bu fenn bu la mënul dara bu leen leeree ni mënuñ laa corrompre mënuñ laa def dara ñi la wër la ñuy infiltrer de dañ lay def mën nañ la sax jaaree sa jabar <laughs> mais Sénégal nag liñ bëgg liñ bëgg liñ bëgg métti quoi dafa am benn benn benn jamono li ma lay wax ne yàgg na ëpp na ay ay ay fukki at ci ginnaaw. Hmm. léegi xam man damaa gëm. man dama man dama bëgg Sénégal gëm suñuy baax ak suñuy valeur man dama koo gëm gëm Sénégal léegi benn euh, waaye bu am xaalis boo xamante ni chef d'entreprise la woon yor ay yor ay biens yu bari fii. Hmm. boobu maa ngi garage ñoo ko daan liggéeyal ay otom benn jour ñuy waxtaan mu ne ma booy man damay tuxu Sénégal quoi. Hmm. ma ne ko tuxu Sénégal mun a ma mere ko ma ne ko yow grand li nga am fii yëpp li nga fi am ci ay bien ni nga casé ak ni mu ne ma non réew mi wax ma yu bari mhm. li ma lay wax ni yàgg na de war na man ay ay dix ans wala quinze ans ci ginnaaw ma mere ko quoi mhm. mu ne ma non damay jaay sama bien yëpp dem tuxu mhm. wax ma fenn à l'étranger dama foofu laay dem toog fa ak sama njaboot ma casé parce que Sénégal nangam ak nangam ak nangam ma mere ko Hmm. mais li ma waxoon lépp ma. dëgg la li naan waxi mag. day guddee àll waaye du ca fanaan. Mhm. yu ci bari maa koy doo maa koy gis. fi <laughs> may sécurité daal mooy réitérer ñaari demande yooyu nga xamante ñaari sàkkuteef yooyu nga xamante maa ngi koy def ci direction Walfadjri mhm. bi si jiitu mooy ñu gën a sécuriser les locaux de Walfadjri bi si jiitu beneen bi topp mooy ñu gën a la sécurité des agents et des chroniqueurs yi nekk Walfadjri parce que li mhm. daloon maam Biram wàcc démb ak euh, Pamatar lu ne mënoon décisions yi jël arrangé état te fex façon pexe bu nekk ñi ngi koy nas pour euh, atteindre li nga xamante moom mooy mm-hmm. faagaagal seen seen sécurité. mi ngi noonu faagaagal seen sécurité waaye taxul ñu retourner seen veste parce que góor la euh, bu gisee lu weex danaan